rural bi ngir rek amal fa liggéey bu am solo ñaar fukki at a ngi nii waaye nag forage dal di xëddeem amuñu seen condition liggéey dafa metti non seulement waaye amuñu benn contrat ñëw yokk ci xar mi karaw jafe-jafe yi nga xam ne euh, ñu ngi koy euh, dund askan wa yow ci dund woowee muy monde rural bi ci euh, ndox mi ni ñu ko gérer en tout cas ñoom nee nañu li ni mel buñ ci àndul joyanti daañu lompañal liggéey bi ba wi donte seulement ñu ngi amee jafe-jafe jam jëm ci wàllu gestion ndox mi ci monde rural bi ñoom daañ ko gën a lompañal parce que defee jafe-jafe yi gën a tardan ci teewlu ki àddu yox seen kàddu di Babacar Ly mooy secrétaire général bu collectif ëmb téeméer ak euh, juróom ci ay liggéeykatu bénévole hydraulique ci mi ko mbéytaal xumba ay travailleurs yoo xam nii tey ñii def nañ fi dix ans ñii vingt ans ñii trente ans boobu ba léegi ñuy daw ci ginnaaw état pour ñu am embauche mënuñu ko am kon loolu jéggi na le ministre Serigne Mbaye Thiam devant les à l'Assemblée nationale mu jël ay tuuma yu doy waar yoo xam nii teg ko ci kaw travailleurs yi et que njëkk mooy dane bi ñu ko joxee liste cent cinq travailleurs et que def benn audit boo xam nii tey gis na am na ñenn ñoo xam ne lañ fi ñëwee alors que dafa def erreur te alors que bi moom bi mu defee audit ñun aussi dañoo def audit boo xam ne nii biñ ko génnee ci lañ def bénévolat tey mel ni ñu ngi ñëwee ci secteur bi à partir de 16 ans 17 ans wala 18 ans. mi ngi noonu Haj Mansour ñoo ko déggandoo au delà jafe-jafe monde rural bi di am ci gestion ni ñu yoree seenuk euh, ndox gis nañu ne ña fa nekk itam di ko liggéey seen condition doy na waar. mais euh, yàgg naa wax di ko te wax tey. yàgg nay dénoncer seen situation bind na ay lettres yu bëri yu dem ci Serigne Mbaye Thiam yu dem ci direction yi nga xam ñooy seen ay kilifa mais faale wu ñu leen Mohamed ci ñoom pratiquement ndox bi yëpp ñoom ñoo ko yoral boo gëstoo ñoom seen ay liggéey ak euh, jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel même école bi ñu leen doon tàggate Kaolack sax dañ koo jël xam nga jox ko ñan benn société étrangère bu tudd Félix ñooy exploité ndox ci dëkk kaw yi nekk ci Sine saalum CO e ñooy exploité Euh, ndox ci dëkk kaw yi nekk ci commune bu Nguéniène ak yu mel noonu euh, Aquatec mooy exploité ay ndox ci dëkki kaw yu mel ni comme sama diwaan muy ay tent baab ak li ko wër ñett yooyu ma la tuddal yëpp ñoo seen o ci benn peñe amaluñu askan wi benn njëriñ exploite jël si ñu fekk ñu in def seen i installation ñu accaparer seen installation te xamuñu nu ñu defee passage xanaa man Mouhamed bu ma lay jaay lëf ma lay jaay seen TV ginnaaw fréquence bi ginnaaw euh, personnel bi xanaa au moins taabal yii nii coûté woon na ma cher. plateau yi quand même xanaa yooyu war naa la ko jaayaale. mais jaay naa la trop seen tuyau après jeex na noonu euh, wala def nañu benn contrat ak waa teg seen eau Félix CO ku mu ci doon da ngaa fekk ay installation yu ni jong nga ñëw léegi yokk abonnement ba nga ñëw wàññi personnel ba nga ñëw yokk facture ndox ma ñëw jox ndox joxe ndox mu gën a bon. gën a ñàkk yërmande aussi ci comprendre nit ñi ak seen ay facture tey boo demee fu mel ni seen Sen'Eau dakaar ñu ngi jooy ñàkkum ndox mais yeneen i localité yoo xam ndox mi dafa jóge ci Ofor comme maa campement Ngekoox mhm. jóge ci Ofor dem ci euh, waa Sen'Eau askan wa xamuñu benn yoon ci yenn clause la contrat boobu amee ba maire ba jël ndox ma teg ko ci loxo waa Sen'Eau ñu ñëw accaparer seen i seen i seen i installation tibb suuf tabax nu mu leen neexee force nit ñi ñu defaat yeneen abonnement yu bees te joxuñu leen ndox mu doy. loolu nag bu amee ñu koy joytu daaw jéeg ba léegi sëriñ Mbaye Thiam nekk fi taxaw ci kanamu député yi ci assemblée nationale di soog am ay dogal yu mu jël dafay tey xel liggéeykatu ndox yi souffrance boo xalaatul ci àdduna ñu ngi koy dund fii ci Sénégal Mohamed am na ci man xam naa ci ku way juram dee na deux jours te yëgu ko parce que fa mu nekkoon amul réseau pour mën a am téléphone. Babacar Limie may jokkoo moom lu bëri ci wàllu téléphone di ko laaj seen évolution wu ñoom seen ay dossier bougé wul yotaa dañu leen faalewul dimbalewuñu leen te bu ñu xëyoon benn bis téye ndox mi téye seen loxo ndox tuuti am fenn ci Sénégal et amul heure benn boo xam ne du ñu leen ko jógloo ay 3 heures du matin ay 4 heures du matin saa bu ñu leen soxlaa yëkkati leen di leen exploité di muuc seen deret ci façon boo xam ne kenn xamul nan la tudd waay waay Serigne Mbaye Thiam na jéem a trouver solution ci ndoxum Sénégal wala itam président Macky Sall suñu ndox mi jox ko ku mën a jox waa Ndakaaru ak yeneen capital régionaux yi ndox mu sell mu ñu mën a naan doxul mi ngi noonu doxul xa euh, Birahim li ñuy li ñuy sàkk leen lu dul seen recrutement ndax lu toll ci ñaar fukki at ñu nekk di ko def euh, bénévolat jot nañu ne ñu utaleen contrat ci liggéey bi ni mel finalement jafe-jafe ndox mi yemul rek ci réewum taax waaye monde rural bi également ñu ngi yóbbu. yow daanaka da ngay dem mënoo am contrat ci foo xamee ni liggéey bi yëpp yow yaa ko yore parce que dañuy naan dañ la xaw a sous wala yu mel noonu. Hmm. nga nekk fa pendant vingt ans vingt cinq ans trente ans mënoo am contrat. d'abord distribution wu ndox mi yow mi nga xamee ne yow yaay taal machine yi ci biir bu ñuy wax forage yi yow yaay ko yore yow mi nga xamee ne bu fekkee ni dafa am usine pompe bi yóbbu ndox mi yow yaa fay nekk di ko régler vingt quatre heures sur vingt quatre bu taxawee yow la te mënuñu laa jox contrat gis nga euh, dans cette histoire dañ naan Serigne Mbaye Thiam à bon dos daanaka moom mooy ministre bi mhm. mais moom mooy ministre bi moom mooy tutelle bi bu amul lu doxul ci li nga xam ne moom mooy département mais am nañu sañ-sañu ne ko sëñ bi nag Euh, la nga yore doxul am na lu ci doxul wala lu ci ëpp doxul on parle du contrat d'affermage bi nga xam ne moom moo lié état bu Sénégal ak ñiidi di Suez ba ñu indi fii li nga xam ne moom mooy seen o gis nañ jafe-jafe yi nga xamee ni jural na ko askan wi actuellement. Mhm. contrat la boo xamee ni que respecté wul clause contrat bi mais daggal contrat boobu nga jox ko keneen ku mën mu jëm ci wàllu hydraulique euh, rural également mu même problème contrat ña ngi ko joxoon mais daggal yooyu le contrat mais ça il faut nga xool pour le bien-être des bu lu ci xool na ni euh, mbirum gouvernement gouvernement la nga ne diggante France la ak Sénégal. gis nga tant que ñu ngi bootu ci ginnaaw euh, ñi anciens colons yi ñoom ñoo ñu indil seen benn société muy lu jëm ci wàlluk ndox lu jëm ci wàlluk tabaxum aéroport lu jëm ci tabaxum tali nga jël lépp jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab bi ba pare amoo sañ-sañu ne leen li ngeen def baaxul terre bi ñan lañ ko jox te yow amoo sañ-sañu ne ni ñii ñu jox suñu contrat bi respecté wuñu ko mais loolu finalement ce sont les populations qui vont en pâtir mais pour loolu il faut nécessairement que le ministre prenne ses responsabilités. mais pour le bien des populations et c'est ça qui est important. ci jamono jooju euh, Birahim askan wa ca Tivaouane Peulh ci guddi got setagul lanu nekk rawatina ca gox ba ñu duppee cité Nabi